Sonko woni Diomaye Diomaye woni Sonko Sonko woni Diomaye Diomaye woni Sonko Sonko woni Diomaye Diomaye woni Sonko bandiraɓe cilok bandiraɓe bosoya pastef mo cilok man goni weltanaɓe vraiment min ɓeyɗo il volet engagé emin gummi añam et dans les autres communes. Waouh, Nous demandons aussi notre confrère de combat, notre compatriote de Arde Handi Chilen, Wadi Dolel, Pastef Mouchilen, Wadi distribuer des spécimens, Wadi communiquer et sensibiliser à faire des programmes Ousmane Sonko. Masha'Allah, on a vu tellement de monde, la nouvelle génération, la jeunesse surtout, les commerçants, les marchands, les artisans, sambo fof min tawiɓe e nder palasuji maɓe min jewtiran min kalniɓe holko ummini ousmane sonko e programme basir donc noon sans plus tarde bandiraɓe furankoɓe heure de rupture yonti ko sonko ko sonko ko sonko ɗum noon bandiraɓe on calminama on jarama macar dawa dawa présente toi présente toi virtuel ñëpp aussi di am contact bu ko quoi di am contact ci gars yi bu baax di wax euh, tey ñu ngi ci département de Matam ci commune Thiel Thiel nag góor gox wax dëkk révolution parce que samay bëroo di toog fii ñu bëri depuis 2006 ñu ngi ci combat bi ma neen feere neen ñoom Bakour Diaz ak gars yi sama gars yi waa Kisal gars yi ma xam la peut-être am na ñoo xamante ni ñu nekkuma ak ñoom. avec plaisir gis ñoo xamante ni depuis 2006 ñu ngi ci combat bi te ma gis ñu adhéré ci politique adhéré ci politique mooy lan mooy jël benn combat boo xamante ni da nga gis ne Sénégal yëpp ñu ngi ciy gis seen bopp mooy combat de développement mooy combat boo xamante ni dañoo bëgg li ñëpp bokk côté santé bi côté euh, agriculture côté yu bëri yoo xamante ne am nañ njort incha allahu rabbi ak suñu programme bi ñu defoon 2019 programme solution ak tey programme coalition Diomaye Président am nañ yaakaar bu baax a baax incha allahu rabbi changement dina am mais changement boobu noonu nag pour moom ñun ñooy farlu ñu xam ne li ñuy liggéey du ñun. mais pour avenir bii ñëw la incha allah yaakaar nañ ne fii ak 10 ans waxuñu yooyu la lépp dina baax de waaye jàpp nañ ñu incha allah rek yooyu la dina tegu ci yoon comme nag gars yi li ma leen di wax rek mooy di ngeen jàpp foofu la wa ɗon ko pee e wiide banndiraaɓe ɗon ngoy wiide neɗɗo ko bandum onon ngoy wiide ɓinngel mooro mooroto ko ñande wadde feere ɓinngel mooro boni par que juulde fenni ɓinngel mooro woni huda eɗen nandi enen wonɓe ɗo ɓe fof kala goto men 2012 wonko mbaɗɗa pour yo makki sallamo ɗaminade so laamima ma fuuta wonko heeɓi ma sénégal waɗ développé ko fate droit e gueɗe goɗɗi fof ma ndew lawol guila nen ha joni enen fuuta ala ko jiiɗen sowona nerf vide ene gadde ha e nder fouta ene fiya e ɓiɗɗo fuutankoɓe sowona nerf vide ene gadde ha e nder fouta ene ditta yimmiraɓe meɗen réclamation aji ene werde hen marché ji meɗen wiide fouta yontinat natti wonde amadou ba natti wonde makky sall natti wonde farba ngom hande oɗo jamma mo gonɗen wonnen koye jammaki ousmane sonko neɗɗo mo kollinen ko ɓinguel men e côté goto par ce que sa wi pastef a wi fouta sa wi pastef a wi sénégal ko noon naga en mbaɗa invité bandiraɓe gorkaka e wulde wulde foof فالهمن هتي بأبل يوبن جابن غوتيا سنبدين دوه إن شاء الله ربي بدين زبيه إن شاء الله ربي كتانا كو غوتو ولي بصير جمعي فان سوكو ولي جمعي سوكو ولي جمعي جمعي ولي سوكو سوكو ولي جمعي Children, respect, respect. Let's come down, come down there. Let them go. Jada, jada, jada, jada, for a for a. Jada, what a for a job. What a for a. Nam, nam, film on. Nice, hein? Nice, vraiment nice. At forum doan. Mu forum. Ha? Live mu ah ni no được mana kai moya. Ni moya dia. Live TikTok ah? Non non, Facebook. C'est bon. Prends bien. yéen leen da ngeen wax yéen yéen rappeurs yi rappeurs war na bàyyi wax. Ajaya Amin de Ajaya mais mais mais eh da ngeen di da ngeen di surveiller bi da ngeen def ndogu di surveiller non.

affaire campagne de en fait excellente journée Nous avons ici à précisément précisément Chilogne, avec euh, les compatriotes de Chilogne. donc nous euh, avons tey avec le Pastef de Chilogne, vraiment une zone engagée une zone sophistiquée. On était là pour la distribution des spécimens, ah, communication, sensibilisation. Donc on remercie Kisal, Koyremen, Jazz, Oh Jazz, Soldier. Impeccable. On a fait un grand tour. On a rencontré les populations. On a distribué, on a communiqué, on a sensibilisé. Par rapport, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu tu l'as, Agnam ci la bokk Orfone ci la bokk Dabi ci la bokk. ba côté de Bosoya xam nañ commune Agnam commune Farba ci la bokk. Elimane ak ñeneen Yaya Abdou Kane. kay ko côté de patriotes yi lan lañu wajal après luumu ci loñ est-ce que porte à porte yi sensibilisation bi bulletin bi mu ngi dugg fépp fu mu wara dugg en fait quoi. waaw gaay parce que yu bëri seen xel dafa nek Fuuta même juste am na wax wa Mourtani dañu ñëw fi du voter c'est-à-dire ban taxaway lañu paré ñun pour def ñun ñëpp pour empêcher gars yi ñu ñëw fii di voter ak yeneen bureau yi nga xamante ne gars yi peut-être dañu wax du dëgg bureau yu existé wul la gars yi di ko compter fii leen ban taxawaay ngeen ci am quoi au niveau de Bossé. merci ñooñu waxoon ci lañ ville historique. foot. Fouta. Sandou foot, je suis là depuis 2006. voilà donc nag li nga wax ci distribution yi être macha allah parce que ci lañ mu ngi taxaw. jaajëf en contact avec de façon mm. régulière. nous ngi liggéey ñoo ngi réunion ñoo porte à porte ñoo ngi mastifié.

tuutànki ñu ñoo war a suñu président mhm. ñu ñoo war a choisir suñuy éli suñuy éli ñàkk a fay dañoo dem Mauritanie di defar ay papier pour les Mauritaniens mhm. à la place dañoo waroon dem jàppale Mauritanie nañu war a am ba am ay kayitu Mauritanie mhm. parce que xam nañu Mauritanie bari ñu am problème nationalité maa ngi laasu appel aussi à samay mbokk Mauritanie ñun soxoruñu bonuñu mhm. waaye nag dañoo nekk di defar suñu réew mhm. Sénégalais yi ñoo koy defar Amadou Dioulde Ba ou Amadou Wouri Ba na dem Guinée Guinée dafa am crise édi yaayëf Cellou Dalein Diallo dafa am problème na dem dooleel Cellou Dalein yaayëf Paco man dama daan gis ci hip hop te fu gis fi réseau hip hop 2006 parce que man xam naa ci loñ gars yi xam nañ ma gisoon réseau hip hop ñuy xeex fi affaire mairie ci loñ ba tey ñu ma jékki-jékki gis leen ngeen nekk si coalition Diomaye président c'est ban motivation ngeen am quoi pour nekk ci rab bi en même temps wu ci côté politique bi. motivation bi kii la eh, kii la rek nu mu tuddati soriwut quoi projet bi rek moo ñu gundi quoi. loolu tax ñu motivé wu. alhamdulilah jóge wuñ si game bi ñu ngi si game bi. jaajëf waaw.

ñen okay. rambi the environment, gan bu talentueux kii aaru xoolal aaru mbedd moo fi war a ñëw génnee gaa yi tawaatee yi nekk fii kii foore me ñii depuis 2010 ñu ngi régal game bi ñu nekk ci hip hop bi yëpp xam nañ leen ñoom kër gi ñoom gaston gaa yëpp xam nañ leen te ak fii fii mun nañ wax région de hip hop la ci biir ci la ci biir Matam quoi Rambi man li ma jaal bi yow daanuma la woon gi ci politique mais daan naa la gis ngay ngay ngay ngay dénoncer quoi mais léegi dama gis nga adhéré ci politique

c'est le meilleur projet e sénégal ok hande komin katanno hannde liw sadio fof min joyi hande masungo windi ɗum programme ok ok jajef jajef rambi jajef jajef gaye e eh, walla e joolengu joolengu kii joolengu benn bulletin kii moom ya yóbbaale par force non votant lan non votant ko jàmm sinon naka affaire yi lépp jàmm ko man daa doon naa ngi alhamdulilah wonde mbiyta waji suura min jaato a waaw ɗo mi woɗo jaw jaajëf waay sino leb jam jaajëf frère cool cey borom ndogo yi eh sa moto bi fa laa koy jëlee Mathiadio kaay olo du def ma signe waay kii de machine. Ok, bye. Bon, ayam pan. Okey. pak pa okay, kon pan. Ko ban. Jayo gay. No, I mean Ono, macam ma jaya min ma Gay min Wow. Mam, essay eh, ni dah nyuji sama dem dalu ji ba after timis bi bu ñu ndogoo ba pare def caravane aussi dugg ci bir dëkk bi distribuer ay flyers di wax gars yi euh, li may conseil sama mbokk yi du waa Fuuta rek mais sous région yëpp village yi mooy bu ñu taayal ak lu ñu nekk ci koor koor koor na ñu jub ñu déplacé wu dem distribuer suñu flyers distribuer flyers dafa am importance bi si nekk mooy kenn benn candidat bi dañuy miin kanamam deuxièmement mooy candidat bi euh, boo koy gis nii toujours si ay flyers dina la jaral nga dugg ci internet xool kan mooy moom te ñëpp xam nañu boo tapee ci internet nga bind Bassirou Diomaye Faye ah wax dëgg yàlla boo seetaanee loolu rek dina la convaincre ba nga mën a ñëw adhéré ci politique eh, ci ci base politique bi. lenn bi mooy la mooy vigilant surtout suñu ak lu mu tàng tàng tàng tàng nañu teel a xëy dem ci école yi voté mooy les représentant de bureau ak les mandataires nañu teel a xëy ñu dem euh, taxaw ci bureau yi pour mën a sécuriser vote bi. yéen yeneen tamit village yi nekk ci cellules yi ngir yàlla war a suuli ñiy nekk di euh, gérer bureau yi ngir yàlla euh, fexe leen ngeen teele leen pareel seen ndogu ak seen lépp fekke leen foofu noonu bu ñu génn dëkk ya bu ñu génn école ba lu dul ne dafa jeex ba ñu jot seen PV le plus important c'est man fii sama biir commune commune de si Civol bis bu élection yi bu ñu tejee bureau yi ba ñu compté cellule bi fa nekk naa fexe ba récupérer sa PV parce que maa ngi oto boo xamante ni c'est disponible des fois sama ndigal la nekk am naa essence bi te incha allahu lahu dëpp bépp dëkk boo xamante ni mun naa fa yegg si guddi gi récupérer PV naa fexe dem ba foofu noonu récupérer samay PV loolu laa amoon comme li may conseillé sama frère patriote yi mooy que ne bu ñu tayal boobu la neexee nga xaar ba ndogu nga def porte à porte léegi-léegi dafa am lu ma benn maire wax fii si biir marché bi dafa ne yéen li ngeen di def ni di dugg ci marché di distribuer ay flyers lii kenn mësu ko fi def lii yéen lu ne yéen a ko fii indi ma ne ko oui maman c'est possible bu njëkk élection wala mun nañu wax ne politique ñi ko daan def ay màggal lañ ay maire ay paa ñun énergie bi ñu am ñoom amuñu ko ñun jot bi ñu am ñoom amuñu ko waa intelligence bi ñu am ñoom amuñu ko ñun lu ñu yàlla jagleel mooy que ne dañoo bëgg di ànd ak président Ousmane Sonko sans intérêt Ousmane Sonko mosuñu may un franc les leaders Sonko mosuñu may un mooy que ne ñun ñoo xam ne lii suñu avenir da cee nekk. Euh, ba guddi incha allahu rabi dinañ continuer live bi euh, am na ki wax aller dans les village dinañ fa dem fi ñu nekk nii rek benn ci village yi la ñu ne su duñu daw léegi baay ñun ci lañ paa to aañam e eh, gale maccaren fof tiyorona kiiɗo quoi eh, kiiɗo wona o mbaɗa ɗum ɗo ɗegendi ɗegendi kiindogo ayi sew sewano yo tek ay café xam nga distribué waaw mun naam bu ñu dogoy rek ñu daw vite fait ñëw donc après guddi gi da ngeen def animation man am na ñi mu woowoon wursoog yaa ñu ne bu nekkee da ngeen def animation waa Baye kontaan nañ kontaan nañ bu baax a baax yi comme ba guddi ñu continuer bi parce que fi ma nekk nii dafa tàng mais am nañ kontaan bu baax ngeen partagé live yi gars ñëpp jot si ñu ngi si campagne bi ñëpp a ngi si campagne bi bu kenn taayal jaajëf